di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun sa su nekk ci liggéey bi tay ñaan suñu borom dool ñu tawfiq ci barke bi alquraanu karim tey nag ñu bëgg ñëwaat ak yeen ci benn secret bu am solo bo xamanteni ni dafa aju ci dafa aju ci ñi nga xamne yalla suñu borom mo leen nato ñuy def safan ni def lu neexul yalla suñu borom muy ak moy yalla mo xam kuy sacc mba kuy njaaloo mba kuy nan sangara mba kuy tox ak lepp lu suñu borom téré rek nga bëgg ko bayyi inshallah taala kon su ko defee tey secret boobu lañ leen fas yéenee andil incha allah di ko def nasihatan li wajhillahi taala minni ilaykum wa nadu allahu tabaraka wa taala an yataqabbala hadihi al amal bi jaahi sayyidil mursalin incha allahu taala kon mbokk yi su ko defee incha allah ñu jublu ci li nga xamante ne moo di liggéey bi ginnaaw bi ñu leen sante bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ak topp bi ngeen di topp liggéey beeg partage bi ngeen di partage vidéo yeeg appel yi ngeen di def ak yëpp rek ñu ngi koy xam te di ko rafetlu te di ko bàyyi xel ñaan itam ñu ngi koy gis te ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu boole ñu euh, nangul lépp rek incha allah taala ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Rasuul kon nag euh, niñ leen ko waxe woon léegi rek mooy image bi ngeen di jàkkaarloo képp koo xamante nii suñu borom dafa dogal ngay def lu ñaaw naka su dul noonu incha allahu taala defal lii dangay ngay bind faatiha da ngay bind faatix waaye dafa am nuñ koy bindee tey secret faatixa la ñu leen indil da ngay bind faatix saa yoo agsee ci baatu nastainu baatu bi nastainu nag soo ci agsee dañ koy baamu ba mu mat soixante dix fois ba mu mat soixante dix fois baatu bi nastainu dañ koy baamu ba mu mat soixante dix fois soo paree nga àggali saar bi incha allahu taala daa di jël kayit bi def ko ci pot def ci ndox nga boole kook nag di jàng suuratul faatiha nga jàng suuratul faatiha boo egsee ci baatub ihdina nga baamuwaat ko soixante-dix fois àggale saar bi wal ko ci ndox mi mbaa nga tufli ko ci ndox mi incha allah soo ko tuflee ci ndox mi nag euh, nga jël kayit bu nga sotti woon jàmb ko boo ko jàmbee ba mu yàbbi incha allah su ko defee nag nga dal di jël ndox moomu fexe ba ki nga xamante ni mooy naan sàngara wala muy def lu xaram mu naan ci bu dee nit kee koy defal boppam tam su paree da ciy naan rek incha allahu taala su defee suñu borom mën na koo gindi ci coobareem ci barkeb faatiha muy sakkari bu am solo lool mi ngi noonu def leen ko yal nañu yàlla saxal ci ak njub saxal ñu ci topp yàlla te nangul ñu sunu jaamu yàlla te xiir ñëpp ci njub asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu